naaw ba nga sant bu ñu sante yàlla julli ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam di won suñu borom itam ne ko say jaam képp lañu yu doyadi yu matadi ta ñu ngir loolu nag ñu ngi tàllal suñu loxo moom mi nga xam ne mooy ki ñu mën a mooy ki mat te mooy ki nga xam ne moo am kattan te moo man te moo sañ ñu koy tàllal suñu loxo di ko ñaan li nga xam ne moo nekk ci àdduna si te jaaxal àdduna sépp te xam nañ ne day maam rekk moo ci man dara mu jëlee ko fi ba mu jeex fi tàkk di ko tàllalaat suñuy loxo itam di ko ñaan Cheikh Mamadou Mountakha bi nga xam ne moo fi taxaw taxawaayu Serigne Touba suñ borom gën koo dëgëral gën koo kattanal musul ko ci mépp ndog ak bépp pakk ba li nga xam ne am na ko ci yéene ci liggéeyal ko lislaam ak Cheikh Ahmadou Bamba mu def ko te def ko kaween ñu kaween jotam te ànd kook moom te daj cee ngërëm Sëñ Touba borom ginnaaw loolu itam ñu di ko ñaanal loolu ñaan googu képp koo xam ne sa it mooy lislaam ak taxawee lislaam sa suñu borom jox la kattan jox la man musal la ci mépp ndox ak mépp pakk ba bépp pakk ba li nga xam ne yéene nga ko liggéeyal lislaam nga def ko ci def yi nu kawe jot te daje cee ngërëmul suñ borom ginnaaw loolu nag ñu nekk ci ay fan yoo xam ne wër wëruñu rek fan yi di ñu romb te amul loo xam ne danañ ko ci jëlee ndax suñ borom dafa bañ képp lépp benn barab bépp barab boo xam ne waa jaarale na ne fa bëggul rek nga romb fa ne jaaroon naa fa kese yam ci loolu waaye daa bëgg nga am loo fa jëlee moo tax muy wax ne wakka i min min ayatin yamurruuna anha wa hum anha mu'ridun bari na nit ñoo xam ne day la ñuy sagoo wala la ñuy tiitaroo mooy dañuy wax rek demoon naa France wala demoon naa Amérique wala waaye dañoo bëgg la nga jële France nga wax ko wala la nga jëlee ba nga demee Amérique la nga fa jëlee nga wax ko waaye boo bëgguñu rek ngay am ci demoon naa ci barab sàngam loolu nag moo tax fan yi nga xam ne moom lañ toll mu am loo xam ne war nañ ko cee fàttaliku ndax fan yi mooy fan gi nga fan yi nga xam ne mooy fanu gàddaayug Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jóge Màkka jëm Madina te boobe gàddaay googee xam nañ ni am na ànd naag ay ay ay ay njàngat yu bari yoo xam ne war nañ si na ko caa mën a jëlee ndax bu ñu ko ci jëlee mooy doon loo xam ne moo nuy gën a mën a dëgëral ci suñuy pas-pas moo nuy gën woon aw yoon moo nuy gën a xamal fi nga xam ne fi lañu war a teg suñu tànk loolu nag tey bokk na ci li nga xam ne mënees na koo jàngate ci gàddaay googee nga xam ne moom la moom la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam defoon ak saxaaba yi ne bokk na ca lañ ci jàngate ngëm yàlla gu dëgër ndax xam nañ ne ngëm yàlla gu dëgër rek moo leen may la nga xam ne moo tax ñu man ñu def la ñu def ndax bàyyi nañ seen i doom bàyyi seen i soxna bàyyi seen alal bàyyi seen lépp dem ci foo xam ne seen doom nekku fa seen alal nekku fa waaye nag ngir yàlla gi ak borom ci ngëm yàlla gi dëggu ci seen bopp rek moo tax ñu man loolee ñoo xam lu ñu def mu doon nag loo xam ne kon war nañ koo jàngate ci xam ne dëgg dëggu ci li nga nekk waxuñu dëggal rek kese waaye da ngay dëggu ba ca la nga xam ne moom nga nekk mu doon lu pas-pas bu dëgër ci yow ndax loola mooy tax nga mën a la nga nekk nga mën koo téye ni nga ko war a téye mooy tax itam mën caa dox ni nga ci war a doxee loolu nag moo tax ba ñu gis ne bokk na ci li nga xam ne lislaam jox na ko itte nga xam ne jaamu yàlla gooy man def bu nekk da lay wax ne lii na ca jiitu mooy yéene te xam ne ni yéene munta nekk lu dul ci kaw pas bu dëgër rek mooy tax nga mën a am yéene ci def la nga bëgg a def kon mu mel ni kon faw dañoo war a bàyyi xel ci ne ngëm yàlla gu ma maanaam yéene yéene li muy rëy rëy li ko mën a tax a li ko mën a tax a sax mooy pas-pas bu dëgër mooy tax mu yéene jëm mën a dem loola itam moo tax ba lislaam jaamu yàlla goo man di def mu mu wax ne la na nga ca jiita jiital yéene ndax xam na ne yéene jëm moo mooy pas-pas mooy tax mu mën a la nga ca bëgg def nga man ko cee def loolu itam mooy tax ñu xam ne ngëm kon ngëm yàlla goo xam ne gu wér la te dëgër munta nekk lu dul ci kaw nga xam li nga xam ne moom nga gëm li nga gëm mooy lan ndax boo ko xamut wuroo mënoo caa dëggal dëggal gi la ca war waaye boo ko xamee nag loola mooy tax nga mën caa dëggal dëggal gi la ci war wala yow xëy na xamoo ci la la nga ca war a xam waaye nag am na koo xam ne xam nga ne moom xam na ko te doyloo nga ko nga jo nga bàyyi kook sa bopp mu lay jaarale fa nga xam ne fi nga war a jaar loolu nag moonu moo tax ba Seex sañ Tuubaa bi nga xamee ne mi ngi mi ngi mi ngi nuy biral melokaan yi nga xam ne mooy tax nit ki nekk murid saadix mu jiitaloon ci ne mahabbatu sayx mooy mooy bëgg li nga xam ne moom nga nekk wala bëgg ki nga xam ne moom nga jàpp xam nañ ne bëgg nag mi ngi taxaw ci pas-pas bu dëgër mooy tax nga mën a bëgg la nga bëgg waaye bu pas-pas bu dëgër amut bëgg la nga bëgg du mën a feeñ ni nga xam ni la war a feeñe waaye nag bu fekkee ne pas-pas bu dëgër ma nga fa la ngay loola mooy tax ba dëggal ga nga xam bëgg ga nga xam ne moom nga loolee nga bëgg mu mën a feeñ ni mu war a feeñe loolu tam moo tax li ñuy won ne ngëm yàlla gu dëgër wala gu dëggu lu am solo la gis nañu ne suñu yonent bi sol suñu borom tabaraka wa taala ginnaaw bi mu tuddee ba mu ba ñu bëggee ba mu bëggee jox daraja yi nga xam ne ñi gëm yàlla te dëggal am nañ ko dañoo xamal ne ginnaaw yonent yi rek ñooy ñi nga xam ne ñooy ñëw ginnaaw yonent yi loolu nag li ñu koy waral li ñu koy gën a xamal moo di ñu xam ne yonent yi li ñuy baax baax ak li ñuy indi li muy baax baax bu fekkee ne dajewuñu woon ak ñu dëggal ñu dëggu loolee du mën a feeñ na mu war a feeñe kon loolu moo tax nag suñu borom ginnaaw bi mu joxee daraja yonent yi ñu dëggal la ca teg kon kon ñu xam ne dëggal munta ñàkk loola nag li ñu koy gën woon mooy yonent bi sa moo di ne am na aaye boo xam ne suñ borom dafay wax ne innamal muminuuna allaziina amanu billahi wa rasuli summa lam yartaabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi ulaika humu saadiqoon yonent suñu borom dañu xamal ne ñi gëm yàlla day akub yonentam mooy ñi nga xam ne gëm nañ ko ba noppi te gëm googee amuñ ca dara loo xam ne moom lañ cay déng-déng wala amuñ ci benn xel yaar dañëw rek dañ koo dañ koo jàpp te doon mu doon jàpp yi nu dëgër te ban bañ ko defee itam ngëm ngëm ngëm jaral na mën na leen a jaral seen alal mën na leen a jaral yitam seen i seen seen i jëmmi bopp kon mu mel ni loolu mooy li nga xam ne moo feeñ itam ci gàddaay gi nga xam ne moom la saxaaba yi gàddaayoon jóge màkk jëm madina loola nag moo tax suñ borom tudde leen ne ñooñu kët mooy ñi nga xam ne ñoom lañ mën a wax ne ñooy ñi nga xam ne dëggal nañ ci lañ lañ pas-pas ba nga xam ne moom lañ yor kon faw liy tax ñu mën a dox ci àdduna si wala liy tax ñu mën a dox ci li nga xam ne moom la suñu borom sant faw dañuy doon nit ñoo xam ne ñu dëggu lañ te dëgg googee itam munta feeñ lu dul ci nga xam li nga xam ne moom nga gëm mooy lan loola mooy tax nga mën caa àgg fa ci bëgg a kon suñu borom mi nga xam ne mooy borom kattan te mooy borom ndimbal yàlla nañu dimbale ba li nga xam ne moom la ñu wax ne moom lañ gëm ñu dëggu ci te te te dëgg googee ànd ak ànd ak ànd ak jàpp ko jàppin wér ci jéem a xam lan loo loolu yi nga xam ne moom lañu gëm mooy lan wala buñ ko xamul itam ñu man a ànd ak koo xam ne gis nañ ne kii xam na ko te te doyloo ko te te jàpp ca ca jàpp ca la nga xam ne moom lay wax ndax loolu booy tax ñu mën a àgg fi ñu fi ñu bëgg a àgg yàlla na suñu borom taxawal boppam yàlla nañu suñu borom sàmmal boppam yàlla nañu suñu borom dimbale ba lépp loo xam ne romb nañ ko ñu bañ koo romb rek ci romb nañ ko kese waaye nañ ko romb ci te am te am luñ ci jëlee kon loola mooy tax la nga xam ne moom la ñu romb ñu mën caa jëriñu mooy tax itam ñu xam la ca suñu borom def nan lañ cay jëriñoo bu dul loolu dañuy romb rek di wéy romb nañ demoon naa barab sàngam duggoon naa barab demoon na gisoon naa diw sàngam waaye képp koo xam ne romb nga ko wala képp koo xam ne gis nga ko na nga am na nga góorgóorlu ba am loo jëlee ci moom loo xam ne da nga ko jariñoo ci sa àdduna ak sa alaxira loolu suñu borom mën na ko jàpp na ko yàlla nañu ko defal rabbana innana zalamna anfusana wa in lam taxfir lana wa tarhamna lanakunanna min alxaasirin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 innahu huwa alxafuru rahim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 laqad xalaqna al insana fi kabad ayaxsabu an lan yaqdira alayhi ahad yaqulu ahlaktu maalan lubada ayaxsabu an lam yarahu ahad alam najcal lahu aynayn wa lisaanan wa shafatayn wa hadaynaahu najdayn falaqtacama alxaqabata wa ma adraaka ma alxaqaba fakku raqaba aw itaamun fi yowmin di masqabatin yatiman da maqrabatin aw miskinan da matraba thumma kaana min alladina amanu wa tawaasaw bilsabri wa tawaasaw bilmarhama ulaika asxaabu almaymana walladina kafaru bi ayatina hum asxaabu almashama alayhim naarun musada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 asalaamu aleykum asalaamu aleykum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 wa kaffir anna tabi'atina wa duyuunana wa kulla ma wajaba alayna laka aw li xalqika ijmalan wa tafsila wakfina bi jaahihi fi'la kulli ma la tuhibbuhu wa la tarda hatta nalqaaka raadina mardiyina amin ya rabbal alamin allahuma bi haq wacci lahi taala alkarim salli wa sallim wa barik ala sayidina wa mawlana muhammadin wa alihi wa sahbi waxfir li wa liwalidaya wa lilmuminina walmuminati walmuslimina walmuslimati ala ahyai minhum wal amwaat